def ci aaday arab nag di def faxru ci seen famille boobu mu doon muy wax ci seen cosaan sallaajal ibn xaldun ibn xaldun mu arrix la taarixu ibn xaldun téere bu rëy la boo xam ne bi aleyk salaam alhamdulilah wax na ca histoire lu bari ci lislaam mu ne na nga laaj ibn xaldun ci ci téeram boobu ñuy wax taarix ibn xaldun nanga ko laaj an naa ci nun sabl ibn xaldun alayna alayna maanaa an naa da nanga ko laaj maanaa soo ko yëree da ca gis ay xabaar yoo xam ni sunuy maam ya ñoo ko defoon fala naa ñeel nanu boo ko yëree da nga xam ni am nanu bi yamanin ci yaman ma aasiru ay jeexit ci ay façon ngi njàmbaar ak ki ngëneel yoo xam ne lamtum fareesu ko ba tey ma nga fay feeñ maanaam soo demee ci ibnu xaldun eh, dana foo xabaaru sunuy maam ya nekkoon yaman ak seeni jeexit ak seeni jëf wasallaajal suleymaan al kalaaciya moom it beneen mu arrix la maanaam yëral téere ibnu xaldun wala nga yël seen kalaaci kam la naa na lu nu ñeel foofu boo yëree kalaaci da nga gis ni ñeel min xaybarin ci xabar bare na xabaar bu nu ñeel ci xaybar ak xandaq dana la wax ni sunu maam yi ci saxaaba yi daan ànd ak yonent di xeex ca lañu moo tax bon nee na boo laajoon suleymaanul kalaayi da nga fekk ni nun am nañu ay xabaar ci xaybar ak xandak ak yowmu badrin ak xunayn ak dégg nga tabuuk ak sawiq ak banil mustaliq yooyu ay dëkk la ay yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana fa jëmale jihaadam yi mu ni boo laaloon laajoon suleymaanul kalaayi da nga xam ne day def faxru rek aaday arab bihim faxartu summa zaada mafxari bi adabil gaddi wa xusni mantiqi mu ne man bihim ci maam yooyu faxartu laay tiitaroo laay damu summa zaada topp yokku na nag mafxari sama ndam bi adabi ci sama adab bi al gadd ba di aji naat ñor naat gadd mooy tari lu tooy xib te ñor wa xusni mantiqi ak safar sama rafetu kàddu nee na nag sama maam yooyu laay damoo yokk naa puukare nag ci sama adab bu ñor bi xomm tooy xib bees taq xadd mooy lu bees nag ama eh, laxmul xadd mooy wu bees tey lañu ko rey waaye ama bu amee ay fan dootu xadd bi adabil xadd wa xusni mantiq maanaam adamam bu rafet bu mat bi wa zaada ilmi adabi falan tara man shiruhu ka shiriya almunamaq wa zaada yokk na ilmi sama xam-xam sama xam-xam nag moo yokk adabi sama adab nee na man damaa am adab te fekkit nag sama xam-xam dafa yaatu falan tara doo gis man kenn koo xam ne shiruhu wayam ka shiriya mel na na sama way almunamaqi wa di wuñu rafetal fa in madaxtu fa madiixi yustafaa bihi ka misli al asali al murawaq wa in hajawtu fa loola fa fa hijaa'i ka shajaa yaqifu fi lxalqi wa mislu sharaqi nee na fa in madaxtu ba tax na su ma taggee ci samay wéy fa madiixi sama tagg yustafaa bihi danañu ko garaboo des na ko fajoo dana faj ku feebar maanaam fu xolam naqari woon dana ca kontaane kamis lil asali comme lem al murawaqi guddi gu segg ci raawaq bi wa in hajawtu suma xasee hajwut mooy xase ci ay way dañuy wax hija wa in hajawtu suma xasee fa hija yi sama xas ka sajaa day mel ni fotu yàq yaqifu boo xam ne day taxaw fi lxalqi ci baat du dem du dikk wa mislu charaq day mel ni ki fotu ndox Hmm. dégg nga charaq mooy fottu ndax coroxaan dégg nga fa in yaku chiru asa xayri faqad ataani fi hay aqin fi hay aqin wa xanaqi nee na fa in yaku su fekkee way dafa nekk achiru way su fekkee dafa nekk asa gàntul na xayri kadul man ci udaba yi su ci amee ku bëgg way way wa jafe ko mooma man faqad ataani way nangul na ma fii hay atin maanaam ci e, cawarte waxanaqin ak ci mer yëpp su ma sawaree su ma meree man way nangul na ma fu ma bëggee wax su fekkee keneen la way gàntu a mooma moo xam wa in yakun sayfan muhallan falaqad abla nijaadahu inaaqu unuq wa in yakun su fekkee way dafa nekk sayfan di doon jaasi tey man ni nag muxallan bu di bu ñu rafetal di ca xoob ay xaalisa kay muxallan bu ñu rafetal melo nee na fa bu fekkee bu fekkoon ne way jeesi ju rafet la falaqad ab laa ràppal na inaaqu unuqi gàlloonteeg sama loos wi moo ràppal ni jaadahoo wékkukaayu jeesi ja kon maa ko yàgg wékkoo ba mu ràpp bu doon jeesi wa in yakun burdan faqad sirtu bihi muctajiran doona jamii suwaq wa in yakun su way nekkee burdan di ab mbubb burd faqad surtout maa mujj mutajiran bihi di ko tañ laayoo doona jamii suwaqi walis mboolem baadoolo yi jam u suuqatin mooy man doonal malik wa in yakun taajan faqad saada sana jawharuhu jawharuhu musxal la fawqa mafriq wa in yakun su way nekkee taajan di mbaxane taaj nag mbaxane buur yooyu la daan doon boo xam ne dañ cay tarsiix bil jawahir mu rafet su fekkoon taaj la mbaxane bóor la man la faqat yokku na sanan leer jawharam yañu ko rafetale yokku na leer mu xalla diiru li taaj ba wàcc fawqa mafriqi ci sama kaw pàq boobu nee bu doon mbaxane taaj diiru li ma ko sol yokku na taar wa in yakun xadiqatan fa taalama di ab tool bu ami garab ak fa taalama nazahtu yàgg na bu ma doxantu fiha ca tool ba ma ma ma di ca permanaatal xaatir yi sama xalaat sama xol waxada qiig sama bët sama bët ak sama xol yëpp yàgg na ca ten tanasu wa in yakun baxran faqad xustu ala jawharihi wa kuntu nicmal muntaqi wa in yakun su fekkee way dafa nekkoon baxran di géej faqad xustu nee na ma ne kon maa nuur ala jawharihi ci jawharam ba ndax jawhar comme ay euh, wërsëg yooyu dañ dañ koy nuur ci géej di ko génne mu ne faqat xustu ala jawhar yi man ma nuur génnee jawharu géej bu fekkoon géej la man la maa nuur génnee jawharam wa kuntu tama nekk nicma baax na almuntaqi aji tànn ja maa dem nag tey tànnkat bu mën a tànn nag tànn la ci gën a rafet su doon géej la kon maay ka nuur génnee jawhar ja te nekk nag ni ma mën a tànn wa kuntu nicma almuntaqi وهل وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كل أمير مرتقي وهل أنا من خمغني نكما الاستفهام الإنكاري أي ما أنا وهل أنا إسكنكنا لدل ديدت نكما لدل ابن الونان ابن ونان ما يدوم ونان موي بايم الذي ونان كيغا خاني قربه جغيال نكو كل أمير بيب بور murtaqin bu di aji kawe daraja bu yéeg maanaam bu kawe daraja xaqu man xulliya bil ustaadi wa cheikh alfaqihi alaalimi almuxaqiqi wa bil muhaddisi alshahiri wal adibi wal majidi wal baliigi almufliqi taalal tuuti wa aalamu nnaasi bi dooni miryatin siyaanin fi man fi maghribin wa mashriqi bi shi'ri wa taarixi wal amsaali wal ansaabi wal aathaari sal tusaddiq nee na ah, mooy doomi Warnaan mi nga xam ne xaqu man xulliya mooy ngën ji mooy gën a yelloo ci képp ku ñu mën a wasafe sifa bu rafet nag la ñuy wax taxliya xaqu man xulliya ndax taxliyatu moo doon nga jël wur sa xaalis di ko takkal ni def ko mooy xulli takkaay xaqu man xulli ya ngeen mooy gën a yelloo ku ñu melale di ko tudde ustaad wala ñu di ko tudde cheikhul faqih wala ñu di ko tudde al aalim al muhaqiq bu wóorliku ay masala wala ñu di ko tudde al muhaddisu shahir xadiskat bu siiw wala ñu di ko tudde adib wala ñu di ko tudde al mujiid kur mujiidu yu jiidu chira wa yu jiidu taalif wa yu jiidu mu jiit mooy ku man lool lu ne nga xam lu mu andi day ca andi shay'un jayyidun wal mu jiitu aji rafetal aji wóoral la muy def wala ñu di ko tudde baliix al mufliq buy andi kéemaan ci balaaxa nee na nee na bàyyam mooy gën jaay yelloo ku ñu wasafe yooyu silu ak ak di ko wax mooy gën jaay yelloo ku ñu wasafe naan aalamu naasi moo ko moo gën a ëpp xam-xam ci di ji bi dooni mériyatin ci lu dul sikk sàkk nee na loolu si yaani way yem la ci loolu man fi mashriq ña ne ca maghrib ci ne ca wala maaw yana ca penku wa mashriq ak eh, maghrib yana ca sow wa mashriq ak yana ca penku yëpp nee na bàyyam mooy aalamu naasi bi dooni mériyatin ci moo leen gën xam ci lan bi shi'ri ci way moo leen gën a xam way wa taarix moo gën xam histoire wal amsaali moo leen gën a xam amsaali arab yi wal ansaabi ak xeetu askani arab yi yëpp wal aasaari ak jeexiti yëpp sal laajal boo laajee tusaddiq nga dëggal ñu wax la la fa bashiran zaaka alxasuuda innahu yadharu fi baxri alhijaab bilgaraqi wa qul lahu ida staka min danasin anta alladi salakta naxta zalaqi wa fuqta fi ljur'ati xaasi asadin fa mut bi gaydika wa bi riixi shraq nee na fa bashiran bégal bégaleel zaaka loolu alxasuuda añaankat bégal ko ci maanaam tahakkum la ala xaddi fa bashirhum bi azabin alim waaw mbugal mu metti bégale leen ko maanaam da ko da leen di mokke naq ndekoon mu ne naqarale leen ko ba tey itam eh, fa bashiran bégaleel zaaka loolu loolu ma la wax ni war naan noonu la mel moo gën a kawe ñëpp ci yooyu mu doon lim bég na nga ca bégal alxasada añaankat boo xam ne daf nuy añaane ngëneel maanaam naqaral ko ci na ko dégg fa bashiral zaaka alxasu na nga na nga bisal zaaka alxasada añaankat boobee xamal ko ni annahu ni ki moom yadfaru day gañ bil xaraq ci lab gu muy laaj lab fi baxril xijaay ci géeri géeji ŋàññ géeji xas ci way xijaa u mooy ŋàññ ci xas ne ci way nee na ci loolu rek lay xasa lab wa qul lahu na nga ko wax moom añaankat booba ida staka bu dee jàmbat min dana sin tilim yu takk ne ko anta yow alladi yaay ki nga xam ne yaa sa bopp salakta yaa suubu yaa jaar nax zalaq yoon wu ñuy tarxiise nga tarxiis daanu moo la moo wa fuqta yow yaa kawe asadi kuy kuy jéem a mor gaynde di jéem a xotti ko ya buqi loolu mooy ah, xasaytul faxla xar waa yàlla ya buqi ñaari doom yooyu nee na loolu ku ko bëggoon a def gaynde ñeme nga lool di yow nag yaa kawe xaasil asadi kuy jéem mor gaynde fii jur atin ci pànk yaa ko raw yow miy jéem a eh, gaaralanteeg man famut kon deel bi xaysika ci sa mer rek wa shariq fatal bi riq ci sa lor wa ma alladi dacaaka yaa xabu ila daluf waani di lisaani lfaraqi la taxtabi zori ama kunta ta'i an albala muwakkalun bilmantiqi ah, walam taxaf min shaa'irin mahman tada sayfa alhija fara xibaal alunuqi wa ma alladi ana lan mooy la nga xam ne daaka moo la woo jëmelay moo la xiir ci yaa xabbu yow mu bon mi ana lu la xiir ilaa daluf waani jëm ci eh, ñàngoor mi boppam lay tuddee ñàngoor zallisaani kay borom zallisaani kay borom alamiñ kay boroomu lamiñ al faraqi woo xam dafa tàqali koo xar ñaar xam nga jaanu ñàngoor catal lamiñ yu day xar comme lu mu ni rool mbëtt catal lamiñ yu day xar doon lu mel ni yaari ràbb yu dem mu ne lu la xiir ci ñàngoor moomu nataxta bi zóor yi yow yaa wax waxu niin zóor fen ama kunta tayi moo ndax da nga daawul wattu dégg ñu ni inna al balaa muwakkalun bil mantiq loolu ñëw na ci xadisa nee musiba ña ngi ko féetale ci kàddu maanaam bare na lu nit di àddu loo tax ñu naan loo bëggul bul ko jéem sax a tudd ndax bare na loo xam ne lamiñ da koy wax rekk yàlla dogal ko dégg nga ah, moo tax mu ni laa tantiqanna bi ma karihta wa rubbama nataqa lisaanu bi xaadisin fa yakunu bul nee na laa tantiqanna bi ma karihta bul àddu ci loo bëggul fa rubbama nataqa lisaanu bi xaadisin bare na bu lamiñ tuddee ab xew-xew fa yakoonu mu daal di faf am loolu albalaaw muwakkalun bil mantiq ñëw nañ sax walam taxaf ragaloo min shaa'irin ci woykat boo xam ne mahmantadaa waxtu wu boccee sayfal hijaa jaas yi ngàññam faraa mu daal di dagg xibaalal unuqi buumi loos ya si diti loos ya yaa saaxi sallim lil wara taslam wala tusim fasixa nutqi bi tamashduqi wala tasum yaa saaxi sallim nangul lil wara ñeel bi dé bi ku ne nanga ko nangulal cër ba ko yàlla sédd soo ko defee taslam nga mucc wala tasum bul sàkku dégg nga fasixa nutqi aji dégg nga aji fasaaxa ci kàddoom ne nga bul ko jéem a sàkkoo rawanteeg moom bi tamasduqi ci rëy rëylu lamiñ shidq mooy jaanibul fam fi tamasdaqa bi maanaa bare nay wax comme li wala naan rëy lamiñ loolu mooy tamasduq wax yu bare bare yoo xam ni wéeru ko fenn mooy lañ wax tamasduq baat bi cosaan bi ci shidq min min a jaanib tamashdaqa bil kalaami wax na wax yu bare yoo xam ne jaarul ci sawaab da mu ne fa zaaka xayrun laka wastami ila nusxi alxakimi almahiri almuxaqiqi waaw lii ci kaw mi doon fa zaaka loolu xayrun laka moo gën ñaan la wastami déglul ila nusxi alxakim yi jëm ci laa bi rek xakim almahiri ku ñaw al mu daqiq ku nga koo xam ne ku wóoraliku mu daqiq mooy mu xaqiq ku wóoraliku mu daqiq kii kaw faqaaf la woon mu daqiq ndem moom nga jël mu xaqiq mu daqiq li fakun fakun muhazaba tibaaci xaafidan لحكم وأدب مفترق وعاشر الناس بخلق حسن تحمد عليه زمن التفرق فكن nekk المهذب اتباع di ku sell ji ay jikko ku baax jikko ku normal ci ay jikko xaafidan di aji wattu li xikamin ci ay xam-xam ay xikam wa adabi na ki adab muftariqin yu taqalikoo yu tasaaroo dajale la dajale wa aashiri naasa te na ngay jëflanteeg nit ñi bi xolqin xasan ci jikko ju rafet xaaliqi naasa bi xulqin xasanin waaridun fi lxadis soo ko defee toxmat alayhi ñu di la ca gërëm zamana tafarruq ci jamono jegee di tàqalikoo di la ko fàttaliko wala tusaaxib man yara li nafsihi fadlan bila fadlin wa gayra almuttaqi wa kullu man laysa lahu alayka min fadlin fala tutmihu bitamalluqi wala wala tusaaxib bul dangu di àndaaleeg man yara kay gis li nafsihi ñeel boppam fadlan ngëneel lu mu lay gañee bila fadlin ci lu dul ngëneel lay am kat wa xayral muttaqi guddi ànd ak ku dul ku ragal yàlla wa kullu man képp koo xam ne laysa lahu alayka fadlun amul ci laysa lahu alayka min fadlin amul benn ngëneelam bu dellu si ci yow jóge ci moom képp koo xam ne amul loolu fala tudmihu bu ko yaakaar loo mu di la féete ko bi tamalluqi ci ni di ko dox di neexlaate tamalluq mooy neex laa teeg lamiñ feeñal cofeel goo xam ne nekkewut noonu ñu naan tamallaq wa huwa xuluqun mazmumun illa fi euh, illa min li wajhi taallumi talabul ilm ñu bëgg ca tamalluq comme ni mu ko waxee ci taalimul mutaallim wa tamalluqu mazmumun illa fi talabil ilm yatamallaqu li muallimihi wa li euh, ixwanihi talaamidati li yastafida minhum وفوقا سهم النميري لمن لطرق العلياء لم يوفق نغا وفوقا نغا دال دي باري باريل فوق mooy entêtement bi nekk ci taatu bantu fet saxmu pour watar bi mën cee costé bu baax te du rëcc ko ko kon boo ko dee yett dañu xam ne yaa ngi préparé saan wa faw wiqan kon maanaam prépareel rek sa sahma numayri fett gu benn fett numayri kazabun arabiyun boo xam ne eh, dégg nga arab yi daan nañu def léeg ñuy daje ci seen caaxaan yooyu nee nga eh, ku ne man maa gis naa nga ma ki naa di wax lu gën a yéeme ba kooku wax ci ay kéemaanam ni dafa masa sànni benn kéwél fett kéwél ga tëb daw fett ga dab ko mu juy jëm ci càmmoñ fett ga wëlbati ko topp ko mu jëm ci ndeyjoor fett ga wëlbati ko topp ko ba ba matam na mu ko jabe daaneer seetal yooyu fen beneen waaye ni man mas damaa xëy eh, ci ci bëccëg yor yor di dox fekk benn morso ci lëndëm gi boo xam ne dafa biddanti fa mu nekk te dafay nelaw ma diw ko kucc sama yet bi mu door a naaw dem ci jaww ji seetal yëfi ñàkk fayda ay hmm. loolu ñoom ñoo koy wax xam nañu ni du dëgg te ña koy déggit wër na leen ni loolu moo tax kooku nag comme euh, maanaam ustoor boobu la la ni waa ji na nga euh, na nga préparé fett gu mel ni fettu nu may rii googu nga xam ni fu kéwal ga daw jëm fett ga wëlbatiku bal ba wëlbatiku dab ko na nga ko pareel li man ñeel koo xam ne la lam yuwaffiq lam yuwaffaq mayuñu ko tawfiqu li turuqil aliyaa yaay muy jaar ci yoon ya koy jëmale kaw kooku nee na na nga ko préparé fett gu mel noonu moo gën ci moom wafal bi man tartaabu minhu misla ficli almutalamisi allabi bilxaziqi alqa saxifata bi nahri xiiratin wa qaala yabna hindi nar at ubruq loolu déggoon ngeen xisab mutalamis ak tarafatu bnu alabdi seen euh, kii fam borom maqaama naan fa fatax ficla almutamallis min misli saxifati almutalamis wafal defal bi man tartaabu minhu ci koy sikki sàkk ci moom na nga cee def fi'la fi misla fi'lil mutalammis comme fi'lu comme jëfi mutalammis na jaayu tarafa allabi bi kay ñaaw alxadiqi ba tey mooy ku muus ku ñaaw al alqaa dafa sànni woon mutalammis saxifata téere ba ko ah, kii joxoon Nu'maan joxoon dégg nga bi naxari xiiratin sànni na ko ci dex amru bnu hind ko ko joxoon kon amru bnu hind buuru arab moo leen joxoon téere ba fekk daf leen a bëgg a raylu danga ci xisa ba passé woon mu sànni téere ba bi naxari xiira ci dexu xiira wa qaala mu ni yab na hindin yow amru bnu hind irat ta kóol wabruq te nga xuppe ba lay neex ba mu neex la man dem naa sama yoon wala tuib bi wacdi orqubin axaa wa fih kama wa fih wafa samaw alin bilablaqi shaxa bi adru imri ilqaysi waqad taraka najlahu wa gasila alalaqi wala tucid bul daal wacda orqubin daal bu mel na ba orqub daaloon axan mbokk waaye la woon madinatu yasrib dig na mbokkam meññatu garab tàndarmaam waxtu wu dikkee di ko andi mu ne ko demal dafa desee ñor demal ba fa desee ñor bu dikkee mu ne ko dafa ba kera ba mu matee dagg mu daldi ko daggal boppam dem waaje dikk fekku fa dara arab def ko masal nag ci mën war daal moo tax mu ne na nga bul daal daal bu mel ne daalu orqoob wa fih matalal feelu lamar la ak haa u sëkt ndaxte ba ñu ko tasrifu baat bi moo ko yóbbu ci wenn xaraf rekk des ci ayinu baat bi rekk fa des loolu nag euh, sonal na baat bi néewal na ko doole ba tax mu nag feelu lamaram ñu dolli ci aw sakt bu la neexee rek nga ni fi matalal wala li méngool bari na feelu lamar yoo xam ne benn xarafa des wala i kooku lafiif mafruq ca lay am lu mel ni wafaa yafi waa waliya yali yooyu yëpp seen lamar bu dikkee li rek moo cay ah, ndaxte toujours feelu lamar xam nga ni wasnoom wasnu mudaari amuñu jasam te fekk nag xarafu mudaara nekkatu ci su fekkoon da nga naan waliya yali waaw wa moom ca mudaari ma lay tàgg ak moom wa ada yaidu wa faa yëfi wala nga naan yow fii ak yow li waaw day tabbi diggante ñaari noonam mooy fata ak kasra dara du ci xaritu waay waaw dara nandoowu ci ak moom su ko defee kon ñu noppal ko génnee ko diggante ñaari noonam yooyu nga nga naan yow lii nga ni yali yow fii nga wa daari oma noonu lay toll ah fekk nag itam mujj xarafu ràgg la te kon soo ko dee jasam nooy def da ngay dagg xarafu ràgg dindi nga faaw baat bi ndax dafa dugg diggante ñaari noonam xajul dindi laamu baat bi ndax dafa ràgg te kon feen ju ràgg mu jasam ne la mu des ayin gi rek mu des fi lam yafi ngay wax lam yafi walam yali walam yaci su xarafu mu daara awa dañee ak xarafu naf yoo mu des i ak fi ak li gannaaw ga nag dagan na nga yokk ci xaaw li fi des moom la ni matalal kama wafa ni matale samaw al ibnu aadiya al yahudi nee la woon bu beroon euh, këram gu wax lablaq benn étage bu ñu wax lablaq dëkk fa féetewoo diineem di def ay jaamuy diineem rek doonoon ko am kóllëre lool imrul qays ba mu tolloo ci jamonoom yu naqari noonoog ay ñu koy ëpp doole ñu di ko dab mu yor ay bagaasam ay duroo am yooyu e, jaar fa dénk ko ko am fu mu jàll dem ah dégg nga ña ko doon dab moom imrul qays dikk ba agsi fi yëg ni nag ay yéreem ay bagaasam a ngi dénk mu dénk sama wàll ñu ni ko nag danga nu koy jox moom it mu ni duma ko joxe mukk man duma war ko te dañ ma ko dénk ci loxoom rek laa koy teg mu nga ca kaw ba wàccul fekk nag am na doomam bu wàccoon di rab di rëbb ci rab yi ñu daal di ko ni nag soo ñu ko joxul ñu rey sa doom ji mun leen ah lu mën a xew day man du ma war sama kóllëre ba ñu rey doom ja noonu arab def ko nag misaal ci ku matal kóllëre <coughs> mu ni saxa dafa nay moom samaw al bi adru imri il qaysi ci ay mbubbi weñ ah mbubbi imrul qaysi yamu ko dénk loola la naye joxe ngir kóllëre waqat tarakate tax bana naj la hoo doomam xasiilal alaqi muy ku deretam sang alaq moo di wa misla jaarin li abi duwaada laa tatmac bihi in lam takum bil axmaqi nee na lu mel ni dëkkaale abi duwaad waaju yaarame la joo xam ne nee bu alalam manqué mu jox ko alal su këram manqué mu jox ko kër lu mu manqué rek du nangoo am dëkkaale joo xam la na dara moom lan wa la jaarin li abi duwaada lu mel ni ki dëkkaale abi duwaat maanaam mm, jaaru abi duwaat dëkkaaleem ab yudaat shaacir la e, Kaabu bnu Maamata la mooy borom xisa bi ab yuduwaat nag mooy ki nettali ki shaacir la woon mu ni ku mel na dëkkaaleem jooju di Kaabu bnu Maamata aljawaadu almashhuur wa kaana ida jaawarahu ahadun qaama bi kulli cheyin yuslix lépp lu koy arrangé rek moo cee taxaw dégg nga wa ahlahu wa xamaahu mimman yuridu wa ida maata wadaahu mu jëfal ko dee wa in halaka lahu baciirun wala shaatun axlafa aley ba mu jeex moom la ni ku mel ni dëkkaaley abi duwaat ja laa tatma bihi bu ko yaa bu ko yaakaar di ko séenooti fen in lam takun bil axmaq soo nekkul dof waaye soo de weer doo ko gisati ci waxmad jalisan laa taxaafu charrahu wa kabni shawrin lan tara min mutriqi waxmat na nga sant mooy gërëm jëli sant toogaalekat boo xam ne laa taxaafu doo jàq charrahu ayam mukk walan tara doo gis nag min mutriqin jenn aji sëgg fi suuf ni canab sëgg kersaam kabni shawrin gu mel ni ibnu shawr qaqaa mooy turam qaqaa ibnu shawr nee na ku mel noonu moom doo ko gis wa kuntu jalisa qaqaa ibni shawrin wala yashqa bi qaqaa in jalisu daxuuku sinni in nataqu bi xayrin wa inda charri mitraaqun abuus kooku di wax naan man ku daan toogaaleeg xaqa ibnu shawr la waaye nee na xaqa ibnu shawr kuy toog ak moom doo texee di mukk nee na ku mën a ree mooy daxuku sinni ku mën a ree la in nataqoo bi xeyrin bu fekkee gaañi lu baax la ñu wax ku neex deret ku rekke ree waaye da charri fa ñu waxe lu bon nag ah mitraaqun maanaam sëggkat la abuusun ku ñëkkal kanam kanam gi daal di soppi ku ñaaw mu daldi di sëgg rek dootu àdd wanam kanaw mil fahdi aw abuuda an aybil wara wa zanna laa tuxaqiqi wanam nelawal an aybil wara walis ayibi biddeef yi maanaam taxaafal anhu sàggan na na ko sax boo ko sax melal mooy mooy mooy bi maanaam nelawal nelawal wëñ